ka tabax dans cette zone là c'est pareil pour Sabadola quand on voit le mercure dégâts yi muy def sur la nappe phréatique à Sabadola on doit également permettre à ces entreprises de le faire dernière chose muy différence bu mag par rapport ak ñi nga tudd sànq muy l'industrie man nee na su ma Sénégal wala je vais voter une loi d'orientation qui transforme toutes les ressources minières du Sénégal au Sénégal prendre l'exemple de Kédougou où nous avons là-bas des intérêts stratégiques j'allais or moom la ñu natte lu réew ci àddina bi ñu am ko ñu am ko Kédougou mais Kédougou c' est l' endroit la mooy sécurisé au Sénégal ma jàpp ne cette région dafa war am un plan de sécurité spécial parce que nous y avons des ressources vitaux nous avons des ressources extrêmement importantes et cette loi d' orientation qui va transformer au Sénégal lépp loo xam ne mooy alal mooy oru Kédougou mooy fer de Falémé mooy Latapiljut de Thiès fii à Loukagne Thiès gëm a dëkk Latapiljut boo demee tey pharmacie y a des produits yoo xam ne qui s'appelle Atapulgate yoo xam ne c'est parti de l'Atapulgate et nous l'avons ici à Thiès nous l'avons en donc cette loi d'orientation qui est une différenciation nette entre en tout cas ma ma candidature et les autres candidatures fait que justement li nga wax mënut ñoo ànd parce que tout la vision que moi j'ai du Sénégal elle n'est pas la bokkul ak seen euh, vision euh, ci candidature beeg euh, vision bi mais actualité bi quand bokk na ci du ñu bari tuddee une politisation de l'administration bari na ay waa administration yoo xam ne dañu wàcc langue politique gi léegi mais ñu bari leen jaaxal mooy dañu dem ba quand un juge donne une décision de justice des agents de l'administration du Sénégal taxaw ne duñ ko appliquer ban jàngat ngay def d'abord ci le le le fait que un juge sénégalais wax na nañu delloo un candidat ci liste électorale yi la direction générale des élections lànk du ko def. non kooku jaaduwul parce que Moustapha état de droit mooy lan état de droit mooy yemale tous les acteurs ci wàllu droit li ñu tuddee les de droit maanaam yow personne physique entreprise personne morale. Hmm. état personne morale. donc l' état pas au-dessus la loi. donc man je suis très surpris avec notre administration où nous avons de très grands fonctionnaires bu jaaxle naa trop lii di am Sénégal donc état de droit mooy ne décision de justice dañ ko a àtte mais état de droit mooy lan tamit mooy la séparation des pouvoirs boo jëlee tey ni ko organiser parce que lan moo <laughs> lan moo waral séparation des pouvoirs am c'est parce que nit ñi bëggatuñu woon am un despote mm-hmm. kuy bum di bumi loolu waral ñu jël kuréel boo xam ne moom mooy dogal àtte dogal loi ñu tuddee ko législatif ñoom ñooy voté loi yi ñoom kuréel boo xam ne moom mooy exécuter les lois ñu tuddee ko l' exécutif mooy le pouvoir exécutif présidence de la république gouvernement ak la ci topp direction générale yi ak le pouvoir judiciaire boo xam ne mooy àtte ku nekk nga am sa cër d'ailleurs moo tax euh, xam naa su ngeen may occasion tout à l'heure bu ñu waxee ci programme bi nga gis le réformes institutionnelles très profondes pour que justement ñu mën a yemale entre kii dogal maanaam législatif assemblée kii exécuté gouvernement président de la république ak nga xam ne mooy àtte. donc pourtant chaque fois dañuy promettre ne dañuy couper le cordon ombilical mais ba léegi gisuñu dara. non moo tax dans mon programme xam nga mm. ma nekk le président du conseil supérieur de la une cour constitutionnelle boo xam ne mooy nekk la clé de voûte de la la juridiction au Sénégal mooy lan am na ñoo xam ne soo <laughs> suñu déggalu dañ naan no on doit pas de république des juges nangam nangam mm-hmm. mais les juges dañ leen lan moo leen tënk c'est la loi. mais bu ñu gisee la perception aujourd'hui euh, Pierre des Sénégalais sur la justice mais elle est désastreuse tey Sénégalais dañu jàpp ne ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ma fi nekk et pourtant nous avons des juges brillants comme toi comme moi comme Moustapha c'est des Sénégalais yoo xam ne ils sont dans les familles c'est des gens honnêtes et dama jàpp ne c'est plus de des magistrats au Sénégal mais ñooñu pour ñu yombal leen seen liggéey d'ailleurs on a vu récemment d'ailleurs des pense que dama jàpp ne c'est 15 pour cent des magistrats au Sénégal. sont majoritaires mais ñooñu pour ñu yombal leen seen liggéey Pierre dama jàpp ne il faut ñu xettali leen influence ba nga xam ne mooy am entre l' exécutif et le judiciaire ñu wàññi ko justement en coupant cordon entre l' et le judiciaire. la direction générale des élections dans ces euh, ci cas mel nii lan la war a def appliquer comme euh, ni ma déggee maître euh, Mawade bëggee wax ko immédiatement la décision de justice. mais absolument <laughs> <laughs> mais mais il n'a pas le choix l' administration. il n'est pas au-dessus de la loi donc dama jàpp ne bu fekkee y a une décision de justice boo xam ne ñëw na s'il n'y a pas une décision contraire boo wéeru parce que les actes de l'État les actes de l'administration sont soumis quand même aux lois et donc je ne comprends pas pourquoi euh, <laughs> ça ne s'applique pas. est que le Sénégal est malade de son administration et de sa justice wala boog da nga foog ne c'est excessif de le dire. man dama jàpp ne y a y a un contexte politique waaw je crois que war nañu mën a fexe ba sunu euh, démocratie boo xam ne dama jàpp ne d'ailleurs ñun ñoo ko créé dañ ko hérité parce que y a des hommes et des femmes yoo xam ne sont sacrifiés pour ñu am am lii kon personne n'a le droit nii ngay homme politique nii ngay fonctionnaire amoo droit lii nga xam ne boo ko boo ko yokkul waroo ci wàññi dërëm dama jàpp ne euh, te gis nga gis nga démocratie Pierre da ngeen di observer demal dans le groupement de femmes dans les ñuy def avec les GPF tous les lundis dañuy daje waxtaan bu juboo jël ay décisions dans la concertation dans la démocratie jëlal les ASC des jeunes ASC yi man je suis un produit des des nawetaan danañ def réunion 10 heures du matin jusqu'à minuit di waxtaan kii jàppal kii bàyyil bu ñu juboo donc la société sénégalaise est une société fondamentalement démocratique donc les hommes politiques la le seul choix qu'ils ont mooy renforcer démocratie parce que de toute façon le peuple sénégalais n'acceptera jamais un système qui n'est pas démocratique qui n'est pas basé sur la liberté d'expression sur la liberté de penser mais également sur le respect des lois et règlements loolu moom dugal sax ci li may tiim nii di ko liir mooy des yoo xam ne def nga ko ci les réformes institutionnelles et politiques yoo xam ne bis boo nekkoon njiitu réew Sénégal moom nga bëgg dañu traverser des moments difficiles dem ba classe politique wóoloo tontu seen bopp ñu créer ay seeni ñu bëri wax ne cette cette proposition là elle est parce que Sénégal quand même ministre de l'intérieur wala boog ministère de l'intérieur moo fi mas di organiser ay élections te c'est à travers ces élections la ñu am ñaari alternance à quoi bon d'avoir euh, un organe indépendant de gestion des élections waaw xam nga euh, Moustapha boo xoolee Sénégal tey coow li Sénégal 80 pour cent quasiment coow li politique c'est c'est c'est le débat politique sur les sur les contentieux électoraux sur les contentieux politiques tey gis nañu de manière très claire que la population perçoit que boo nekkee ministre de l'intérieur am sa candidat sa penchant mooy soutenir sa candidat même si man dama gëm ne Sénégal kenn mënu fi jalgati élection mm-hmm. parce que élection bu amee <laughs> dans les quartiers dans les écoles parti bu nekk yaa ngi sa candidat nous avons la Sénat, nous avons la presse, vous êtes présents. Et je, fais, et je, salue encore Walfadri, parce que les alternances qui ont au Sénégal, euh, Walfadri a joué un rôle très important. Ce n'est pas pour vous flatter, mais c'est un constat. Dama jàpp ne loolu mu Maintenant, pourquoi ñu waroon. Walfadri euh, la veille de la présidentielle mu ne tamit xaaral ma tëj non non non non non non non non ay alerte la mais mais moi je dis moi, je